Salmon numéro 2 ak Cheikh Mbaba Salmon numéro 2 mbokk yi moo ñu féete à droite Cheikh Mbaba moo féete à gauche ngeen moo ngembul xonk bi Salmon moo ngem moo ngembul vert li arbitre bi sifflé na Salmon numéro 2 Cheikh Mbaba Cheikh Mbaba moo ñu wan ginnaaw Salmon la nu jàkkaar lool Cheikh Mbaba a ngi dox ci kaw Salmon Salmon Cheikh Mbaba Salmon ak Cheikh Mbaba Salmon door na Salmon ak Cheikh Mbaba Salmon ak Cheikh Mbaba Salmon door na léegi Cheikh Mbaba fay na ak Salmon Salmon ak Cheikh Mbaba jàppante ñoo koy xeex Salmon ak Cheikh Mbaba war na ko ndomba koy def yenu na ko daan eh! Cheikh Mbaba daan na Salmon Cheikh Mbaba yenu na kaw doo ci suuf